nataal ñaar fukk ak juróom balaa moo dellu asamaan ci wetu baay bi yeesu wax na ay xaritam maa ngi ak yéen bés bu nekk mu ne tamit dingeen jot kàttan bu xel mi sell mi wàccee ci yéen ci loolu moo tax yeesu ne ay xaritam du ngeen wéet ndax dig na leen ne di leen dina leen yónni xel mu sell mi ndax mu dimbali leen bu fukki fanweesoo weesoo yeesu yónnee leen xel mu sell mi muy niroog yëngub yëngub ngelaw buy bawoo asamaan fii gis nañu xaritu yéesu yi ñuy dégg ngelaw buy bawoo asamaan te ci lu gaaw ñoom ñépp ñu fees ak xel mu sell mi ñoom jot nañu kàttan bi leen yéesu diggoon ba noppi ñu am sañ-sañu yégle turu yéesu ne mooy musalkat bi te fépp fu ñu dem ñuy waare ci turam di xamal nit ñi ne yéesu dee na te dékki na te mooy musalkat bi ñu yàlla yónnee waaw dëgg la ndax yéesu ubbi na bunt bi biy jëme nit asamaan ndaxte yéesu moo nekk diggante yàlla ak nit ñi ndaxte ci bant bi lañu mbugale yéesu ndax suñuy tooñ ndaxte feyum bàkkaar moo doon deeyam ci bant bi tuur deretam ndax ñun te nit ñépp woo nañ leen ndax ñu ñëw nangu yéesu musalkat bi ngir baalu seen bàkkaar ak turam te tey amatul solo lool ndax nit ñi toog di xaar xel mu sell mi ndaxte xel mu sell baa ngi fi te ñépp ñu nangu yéesu mi seen musalkat dañu koy jot ca saa si ba noppi mu dëkk ak yow ci sa biir xol jaarale ko ci xel mu sell mi la yéesu du dëkkee ci suñu biir xol